bon ñu ngi fii ci terminus 54 tey nag euh, tataay dañoo xëy taxaw banque seen loxo ne duñu daw bon tey ñu ñëwoon terminus 54 seet si leen euh, sëñ bi na def. maa sant baax a baax. Euh, dafa mel ni da ngeen grève lan moo leen teree daw. waaw ñun de liggéey rek lañ bëgg. condition yi ñuy liggéey rek moo jaarul ci yoon. mais ñun 5 heures dañuy yeewu 3 heures matin 4 heures di liggéey. mais condition yi ñu teg moo jaarul moo jaarul yoon ñun ku ñu gis xam yi jaar yoon daal liggéey benn chauffeur bu mën yëpp fi mu toll kenn kenn ci cim xar dañuy dóor di dàqe ndax élèves yoo xam ne dara baaxu ci cent mil franc ku la ko jox yow mii di ma intro cent mille ku la jox noo koy def waxal dëgg rek cent mille ku la ko jox noo koy def nam ñu yokkal suñu salaire yi teg ñu yu baax ñu liggéey noonu ñun xale yi fi nekk liggéey lañ bëgg liggéey lañu bëgg moom tax bàyyi suñuy dëkk ñëw di liggéey mais condition yi liggéey baaxul vraiment mais sëñ bi est-ce que seen grève bi yéen ñëpp bokk manko ngeen ci waaw grève bi moom réussite totale la def moom vraiment grève bi moom ñëpp ñi ci d'accordul sax dañoo mujj obligé d'accord si parce que xam na ne li ñuy jooy dëgg la ah, li ñuy jooy lépp dëgg la ñëpp ko bëgg kenn ku kenn ku booy liggéey boo soñoon la ngay liggéey mu nga am si nga am si nga ndax ñun liggéey ñun ñun yéenee transporteurs yi transporteur dañoo war a noonu ñun dañoo yéene suñuy transporteur pour ñu liggéey parce que ñoom bu ñu amee ñun dañoo war a am mais njëriñ loo xam bu génnee kenn rek koy mais mais sëñ bi defal daal cest à laajte mooy euh, yéen depuis kañ ngeen commencé ñaxtu li li ni kañ la. yàgg na yàgg na ma tàmbalee ñaxtu mais dañuy soog def action nag danoo tàmbalee parce que nag nit ki boo dee wax si suuf di wax si suuf ba mu yàgg gisoo njëriñ war na nga yëkkati sa baat dañuy soog yëkkati suñu baat nag te it saafara wuñ ko kanam la jëm. dut ñu bàyyi fi mu toll nii. dañoo war a jàppale ñu liggéey fi mu toll moom sa kanam ah kon yéen ko ko déggandoo sama gars yi dafa mel ni ñoom danoo danoo ci lu ñu ŋànk ne duñ ko bàyyi euh, sëñ bi na nga def. maa ngi fi rek maa ngi sant bu baax. alhamdulilah dafa mel ni yéen da ngeen grève bon yan condition moo tax ngeen di grève. ñun daal condition yi tax ñu grève ñun ay liggéeykat lañ ñu liggéey te tamit ñi fi nekk ay responsabilité lañ ay borom kër mais nit booy nekk moom daa war a xam yow mi li la war mu ànd ak mu ñun ñu chaque jour di yow heure bu nee di liggéey ngir ñoom di leen mu jarañu lu ne te ñoom teguñu ñu fenn am na loo xam dafa metti cent mille francs mënuñoo arrangé mu jariñu ñu dara dañu dem suñu kër du ñu matal dara gis nga weer bi ba weer bi dee dañu am problème sax suñu situation ñu di dund suñu kër mais sutura doo mën a xam mais am na loo xam nag bu yàggee il faut nga gis bopp affaire daal métti na trop nit ñi nañu yëkk xam ne fu ñuy teg ñu teg ñu suñu place di ñu fay salaire bu baax ñuy liggéey ànd ak ñoom gis nga àdduna booy ànd ak nit yàlla la lay booleek moom mais da koy xam quoi loolu mooy àdduna ñun ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm nag ay liggéeykat doo nga fi nekk waa 54 ay champion lañ ci yoon bi métti na trop dañuy daj ñun rek ñoo ko xam de si kaw télé bi camion yeeg oto bu ne ñuy tànc dañ koy tenir suba ba ngoon dañuy xëy embouteillage yaraax gis ngeen ni mel ñëpp xam ni mu demee sax dañuy doyal yal na yàlla doole jàmm nag te ñoom it ñu wax ñoom nañ jàppale waaye te yàlla tax. mais bi dafa ndànk lan condition yi dafa mel ni salaire yi ñoo doyul quoi. non salaire parce que ñun ñëpp ay responsabilité lañ 100000 francs da nga koy sa kër bala ngaa yegg mu jeex boo demee looy def sa kër balaa weer wee dee da ngay da ngay leb ba lépp. mais mais yéen yéen liggéey huit heures de temps wala yéen a liggéey plus de huit heures de temps. plus de huit heures de temps quatre heures si vingt quatre dañ liggéey parce que quatre heures du matin lañuy yow nekk si heure bi. ba billaahi euh, euh, ban heure ci guddi. quatre heures du matin lañuy jóg ba zéro heure presque ñu koy gunóoru. ba zéro heure dañ koy gunóoru barki Serigne Touba nañ ñu jàppale te yàlla tax affaire dafa metti nañ ñu dimbali waaye metti na torop. maaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar ba ñoo ngi lay delloo Cheikh. waaw tey dafa mel ni tata yëpp dañoo xëy taxaw yow nga nekk chauffeur ba ñu laaj lan moo nekkoon euh, seen naqar ba ngeen xëy rek taxaw. lu ñëpp bokk di jooy rek la ñuy ànd ak ñoom di si jooy muy salaire bu. indemnité de logement ak yi war daal comme que Sénégal moom kenn xamul. lu ñuy wax boo jooyee dëgg ñu jàppale tëj boo jooyee ay fen ñu ànd seeg yow di la applaudir te ñun yooyu nekkuñu si moom franchement. bon yéen dafa mel ni tey bànqaas bi ëmb transporteurs yi mooy Captrans te Captrans je pense que moom mi ngi jóge ci bànqaas bi ñu naan euh, aftu n'est-ce pas ak waa sitit mais yéen lan ngeen di dénoncer carrément pour bëgg koo wax autorité yi ñu dégg leen. mooy li ñëpp wax rek li ñëpp wax daal moom la ñuy wax. waaw captarance nag suñuy vingt cinq mille yu ñuy dagg dina ko dagg te kenn xamul fu mu jëm tamit war nañ nu see dimbali chaque jour lu mat dix oto ñu dagg vingt cinq mille francs te xamoo fu mu jëm ah doy na waar de doy na waar torop waaw mais loolu tamit metti nañu moom waaw. condition de travail daal moo baaxul ban heure ngeen di xëy. ah man de sama wàllu bopp man trois heures et demi jox jóg waaw. ban heure ngay wàcc. man maay njëkk si tali bi maa siy mujjee. maanaam maanaam du plus de douze heures de temps te cent mille francs lañ leen di fay. yàgg na balaa weer wee xam fu muy dugg mille francs balaa weer wee dee nga xam fu muy dugg. chauffeur nga wala. chauffeur laa waaw. tey nag da ngeen xëyoon banque seen loxo ñuy waaj ñuy laaj lu ko waral daal. waa xanaa ni mu demee rek ak liggéey bi. waaw sonn nañ tàyyi nañ damm nañ. waaw te ñun boo gisee xam ne liggéey rek lañ bëgg. en tant que jigéen boo xoolee maa fi jigéen presque liggéey rek moo ma ñor ak Dóor mais dafa metti transporteurs yi dañoo war a jox ak ak yelleef chauffeur yeeg receveur yi ñun ay nit lañ dañoo yor suñuy njaboot man mii jigéen laa de mais tey jii laa la wax su ma amoon njëgu dama koy jënd parce que war na ma si benn côté yaa ngi dégg waxatuma laag nag góor ñi nga xam ne dañoo yor ay soxna yor ay njaboot bàyyi ko kër ga xam nga benn simple cent mille francs boo ko fayee borom kër du ko jëriñ dara imagine balaa weer bee tëdd la ñuy calculer li ñu war génn ci mensualité bi yëpp fere yeeg yëpp duñ dese dara xam nga loolu metti na nañ ko wax ta dee waaw nañu jox suñu àq ak suñu yelleef signeel ñu contrat bi dafa metti torop liggéey dafa metti à chaque fois 4 heures du matin jigéen bu koy yeewoo sa kër di ñëw fii xam nga ne liggéey moo la tax a jug nañ waxante dëgg j'en ai nag man boog à ma part personnelle waxuma laa ñi ci des yaa ngi dégg liggéey la ñu bëgg nañ ñu jox suñu gëdd ci liggéey bi waaw ku ko waxutil sonn nga yi nga damm nga nañ ñu jox lu ñu yeel lool ñu liggéey liggéey doo ngi ñu tax a jug ñëwee ngi bàyyoo ba dëkk ya laa la wax pour ñëw dakaar pour job yaa ngi dégg ñun nag li ñu bëgg leen dong la suñu taxawaay bi du leen ku sañan yaa ngi xëy liggéey waaw mais nag nañ ñu jox suñu àq ak yelleef si liggéey bi ñu liggéey loolu dong moo ñu ñor du kes du leneen nag waaw ba léegi signé gu leen benn contrat ñaat at ngeen def ci liggéey bi presque 16 ans waaw 16 mënuñoo fexe ba defal ñu contrat dafa metti dafa imaginel dañoo dawa dawa dawa dawa daw ba sonn xamuñu ñun transporteurs yi ñun lan lañ ñu jàppe mënuñu comprendre lan lañ ñu jàppe waaw dafa metti waaw dafa metti te transporteur boo fi liggéeyal versement bi tuutee mooy li nga liggéey imagine yow 4 heures du matin bàyyi ñëpp ñu tëdd waxuma la rek benn risque bi mooy fi nga génnee ni mu soree lu ne mën na la dal si diggante bi nga jaayante ñëw terminus pour teel a xëy pour te investissement bu baax mais loolu yëpp ñun xooluñu ko buñ la agressé woon war naa ko ci yàlla danga koy fay duñu xam ne sax buñ la xoosoon sax seen yoon nekku ci loolu nag dafee war a jeex ñun ay nit lañ comme ñoom dañoo war a jox suñu gëdd ak suñu yelleef ci terminus yi ak fépp fu mën di doon waaw dañoo sonn mooy loolu terminus sax ma waxaale ma ko amuñu terminus pour ñu saw dañuy dugg ci kër jàmm des fois ñu taw tiire la defal lu la neex génnal amuñu mi ngi noonu agressé yo yëpp dafa metti daal bu ñu sañoon daal ñu dimbali ñu jox ñu suñu àq ak yelleef ci liggéey bi signal ñu contrat bi loolu daal la ñu soxla contrat la ñu soxla waaw jox leen suñu ak ak suñu yelleef